kadi siya général be a ma jégal naa ko jégal naa ko dañ ñëw ci gel bi borom sama yaay dafa feeba no sëriñ bi nekk ci laay bi moom mooy bashir bashir la jégal ko li ngay wax di baaral mel ne koy togg ñàkk te dégguma la de il faut nga

我们被你被攻击。我们被被攻击吗？ ñaan lu dimbali la ko xamante ci ni do mais boo bëggee jëkkër yi da koy moytu ay envoyé seen lëf ay juutu ay wëngalu ay làmb sa 啊 cara de dam UCH dafa crise cardiaque moo ngi dee mu ngi hôpital dañ ko opéré procès de mariage léegi nga ma fi wax na ma yow tamit da ngaa nekk si poxoy de mariage si nan lay te ne poxol moom nee na ko moom wax na ko tey semaine prochaine je propose dina nag xam nag ma yónnee vidéo xew yi nag su ma gisee vidéo xew yi vidéo yi naa ko partage nó seel ba ziar général bi ah Si dinaa bàyyi mi lii bu mu dala ci leer na waxan ñi seetaan ne jéglu leen ñu te doo ko fati ñu déglu ñëpp wax biir live on est à 3700 ci live bi tiktok na xol vidéo yi après deng li gay live bi na ci son bi on est à 3700 personnes di gay gay gay toog sa limang nagigame I love you more